procès bi Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang tontuloo si alors alors euh, man tontu ñoom Ousmane Sonko jàpp nañu état bi dafay jafandiku ci mbir moomu pour l'empêcher d'être candidat de l'autre côté loolu moom leer na xaaral xaaral ma terminer de l'autre côté Mame jàpp na ne euh, un responsable comme Sonko buy wax li muy wax da ko war a leer mënoo yëkkati ay kàddu diffamé nit après nga bëgg ne affaire bi c'est politique boobu ba tey euh, yow da nga naan rek euh, l'affaire Prodac c'est un mais position joxoo si sa position est-ce que lan nga jàpp yow exactement. est-ce qu'il y ma dagg ma wax la lu ma lu lu leer. en deux minutes. non may leeral bu baax. Mm-hmm. affaire bi affaire politique la xas na ci. Mm-hmm. pourquoi parce que fi ñu toll nii. xam nga jugé nañ ko en première instance. Hmm. Mame Mbaye bu fekkonte ni dafa bëggoon ñu setal daram rek du setal nañ daram am déet. si bu doon setal daram la it moo ko yëkkati mais moom warul appel parce que dafa waroon bàyyi rek affaire bi jàll benn. mais moom ak procureur wala procureur ko appel Mambay bu def woon appel sax procureur def na appel et puis y a eu cet imbroglio autour du juge laissez-moi laissez-moi la décision est erronée laissez-moi terminer de toute façon man je dis ce que je pense en l'état de mes informations ci sama xibaar fi mu toll ak sama xam-xam ci dossier bi fi mu toll ci loolu laa mën a wax dama ne benn fekkente ni rek setal sa der la soxla woon setal nañu sa der hmm. donc yow war nga ne sant yàlla d'ailleurs jéggale na mu yam foofu mais dafa am ci réew mi moom lu ñuy wax loi yoo xam ne lu ñuy wax lu ñu doon wax lu ñoom euh, dem si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm Ibrahima seen ak ñoom euh, Maguette Thiam ak ñoom euh, Yarodé doon wax des lois scélérates ak ñoom mmh. Pa Landing mmh. des lois scélérates et liberticides mmh. mooy sëqat nga ti ci kaw kii mu ne tooñ nga mën a yóbbu naa la yoon ñu dóor la trois mois sursis dootoo bokk présidentiel loolu c'est des lois scélérates moo tax réew mi yëngu bu fekkee ñëpp dañu bëgg jàmm affaire bi leer na nañ ko yemale foofu. leer na ne Ousmane Sonko dafa diffamé Mame Mbaye Niang. loolu la juge bi wax te ñëw ñoom appelu ñu dégg nga waa Pastef appel donc maintenant li ñu war a yi ñun sénégalais mooy mbir mi waroon nañ ko àtte fekk amul. coow li yëpp parce que coow lii am na ñu ci dee am na ñu ci yàqule réew mi yëngu na ci naa comme yegg si nañ fii nañ ko bàyyi noonu ñu jàll parce que war nañu def benn loi nii wax nga diw lii condamné nañ la trois mois ferme wala trois quatre mois avec sursis wala cinq mois wala plus de deux cent millions rek dootoo nekk candidat mais c'est mais c'est très grave faqasalu day am juum day am wax lu ëpp day am maintenant ku nekk ak nu mu ko jàngatee ci ci lu mu wax loolu man sànq ci col benn am na lu ma ci wax mais c'est pas normal ñu bëgg fii indiwaat ay kii parce que de toute façon chaque chaque côté s'y retrouve mais mais imbroglio bi autour du juge est-ce que loolu moo tax. Euh, parquet bi def euh, appel. Hmm. très sincèrement. très sincèrement je vous dis. Hmm. man ñu ci gën a bëri nii lañ ma koy waxee. parce que y a des questions man contrairement à ce que les gens pensent. très sincèrement ça ne m'occupe pas. Hmm.